Euh, lépp lu jëm ci wàllum ak ci réseaux nag dañ ciy ànd ki nga xamante ni rek mooy Jeanne Mendy si tout de suite. donc ay information yu wér te wóor comme ça su ne rek fii da ngeen ko mën a amee ci biir de rendez-vous Jeanne effectivement Myriam point Covid la ñuy euh, dooree 1602 tests la ñu daal day def euh, tey 156 mm-hmm. euh, ñoo ci daal day dikk positif 4 décès la ñu am tey lu tukkee ci Covid 19 49 patients ñoo daal di nekk ci suñu service de réanimation yi waaye contacts la ñu daal day am ci 156 yooyu daal di dikkee positif 34 yi ay cas communautaire la 121 guéris la ñu compté tey ci Covid 19 Myriam. 121 waaye cas yi ñu ngi gën yokk ngi gën a yokk ci 1602 buñ ci compté 156 mi ngi mi ngi gën a yokk bien vrai démb moo ëppoon tey mais mi ngi yokk quand ñu leen di ba tey ak wàllum drogue mu mel ni rek lii lee di brigade bu euh, police bu guy mbind daal dinay teg loxo lu toll ci 250 grammes de cannabis loolu nag ñu ngi koo jàppee fële ca Touba ci kër benn marabu bu siiw loolu Myriam loolu nag daal day suscité beaucoup de bruit ci euh, toile bi ndax ay xale ndaw ñoo ko fa daal day amal ñu toll ci ñett euh, ñu daal di ci ràññee kii lee di M Mbacké toll ci 21 ans Fallou Samb toll ci 34 ans ak cerveau bi di moom it daal di toll ci 49 ans ñoom nag daal dinañ leen di defeeree tey waaye ñuy fàttali aussi ni que fii lay di Joal aussi euh, police def na fa liggéey bu mucc ayib ndax daal dinañ fay euh, jël lu toll ci 84 kilogrammes de chanvre indien yi ñu daal di nëbb ci ay sac d'arachide Myriam Momo voilà beneen bu ñu jógee ci info boobu dañuy daal di wax ci accident yi nga xamante ne fan yi mu ngi lëmbee dëkk bi torop ba tax na axe bi lee di Linguère Matam démb itam amoon na ab accident bu métti métti bu fa am ab oto bu doon jógee ci Dakar di dem fi nga xam ne moo di maatam moo daal di jékki-jékki dëpp waaye mu am ay blessé yu bëri 14 euh, blessé la ñu daal di ci compter ñaar ñi nga xam ne actuellement euh, ñu ngi ci état bu critique bu daal di doy waa actuellement nag ñu ngi ca hôpitaux yi baax waaye ñu xam fi mu toll toll nii ah, daal dina bu baax Mouhamed. Mhm. tali bi dafa tàng temps temps yi. Mhm. surtout ak nawet bi. Mhm. nawet bay nawet bee koy waral surtout aussi. ayca. ñu daal di waxtaanee euh, ci riirum tabaski mu mel ni rek ñëpp fi ñu toll ni dañoo daal di takku ba dëgër euh, bëgg am li nga xamante ne moo di xarub tabaski ba tax na lépp nuñ ko amee rek euh, dafay daal di gën ci ñoom xooluñ ci yàlla xooluñ ci yonent ba tax na benn apprenti chauffeur di wuyoo ci turu Modou Ngom toll ci 19 ans di ab xale bu ndaw moo daal di tëpp ci benn miiru maître coranique foofu la ca tuuba daal di fay bëgg a jël ab xar heureusement ba jabaru maître coranique bi moo ko daal di gis daal di arrêté ki xamante ne moo di jëkkëram ci noonu ne ay 3 heures matin la ñu daal di jóg di ko dàkkati ba ñi nga xamante ne ñoo di waa quartier bi ñoo ko jàppale euh, ba mu jàpp ki nga xamante ne moo di Modou Ngom ñu daal di récupérer xaat bi nga xam ne daf ko bëggoon a daal waaye Modou Ngom ànduloon moom dong ndax amoon na ab complice buy wuyoo ci turu Fallou Sène ba tax na actuellement euh, ñoom ñëpp daal dinañ leen ni teg ay daan kii lee di Fallou moom tëj nañ ko deux ans dont neuf mois ferme waaye Modou la daal day tëdd Mouhamed mu mel ne du ñu toléré képp koo xam ne rek dafay sàcc xaat actuellement yoon day daal di dal sa sàcc keroog rek dañ maa jaaxal sax fi mu nii de. ah takk sa xar ci bundu kër gi sax. ku ci am xar na nga ci veillé de. bu yaboo dugg sa nii xar duggaale ak moom. Ah, <laughs> takkaale ko su muy nekk. moom moom wax dëgg yàlla. ndax diggante ne bëgg di bëgg nelaw ay mbéy dul jeex ci la bëgg a. Ah, waaye boo ko takkee ñëw teg ko saa ci yóbbu la. <laughs> doy na waar de <laughs> ayca. ponk mujj bi lay doon mu nekk ab kawteef euh, Myriam ab femme boo xam ne après 14 ans de mariage ak jëkkëram dañoo daal dee dem resto moom nag euh, mu daal dee jëkkëram ni ko dafa ko nag moom di ko ne bu ko quitté dina ko daal dee euh, ci réseaux sociaux yi ci noonee la femme bi daal dem police porter plainte kii lay jëkkër ji ci noonee ñoom le 28 juillet allah dinañ daal dee taxaw jàkkaarloo ki nga xam ne moo di yoon woon mu nekk kawteef. xanaa Fall la fi waxoon parce que démb rek xam naa. démb wax lu mel nii. waaw démb yow xam naa fi nga jàddoon la. moo léegi yow ngay génn ak jëkkëru jabaru jaamu looy doon di porter plainte. Hmm? non femme bi moo ne jëkkër ji moom dafa am faax. léegi jëkkër ji ne ko su ko bàyyee. moom dina yàq deram ci réseaux sociaux yi femme bi nag menaces yooyu moo tax mu dem porter plainte hmm. ah, léegi yoon dina leen en télévi dina leen en télévi. lii ñu def tendance ci réew mi. am jëkkër am far am far. jaaxal na ma daal ci réew mi ñu ne nii ah. mais y a toujours des non-dits hein? je je pas acte bi mu def mais am na courage dem toog a jëkkër ji ne ko damaa am far et que bëgg na divorce. mais 14 ans de mariage 14 ah. ans kañ la ko tàmbalee def. c'est ça aussi. jëkkër ah? ji am espoir lool ci moom. de 54 bëgg jabar ji torop. Hmm? ndeysaan pour man dañoo war a sóor ëllëg. ñoom mhm. ñi nga xamante ne bëgg nañ leen ko. Mhm. Mhm. ñu doon ay doom yu barkeel. surtout surtout parce que ci sëy moom di njaaloo moom am na loo xamante di yóbbee ci acte bi ñuy def nii. ñoom du ñu xool conséquence ñoom du ñu xool fait immédiat immédiat bi xam nañu ne loolu suñ ko waxee seen góor. day bëgg a dee ndaxte góor dafa fiir buggul bokk. donc du ñu xam faiblesse boobu ci góor donc pour naqaral ko duñ leen ne carrément ah, tëdd naa ak kenn wala am naa faral. et loolu conséquence dafa grave bu nga xamante ne loolu lu jar nëbb la lu ñu war a wax ci kaw donc tendance bi ñu ci jël actuellement vraiment duñ ko xoolaat. bu tombee ki amul retenu sax mën na laa faat ci sur le coup fi nga toog fi nga koy wax. si si <laughs> ku amul retenu moom da rey fi nga toog. nga perte rek. lii moom vrai Sénégal. ah. bouche bée. tey sama tubaab bi dégg nga ça se passe à Dakar au Sénégal. bouche bée <laughs> yàlla na bouche